Gaston Berger journal bi nee na am na kenn koo xam ne jamono ji teg nañu ko loxo te ki ñu jàpp kooke maanaam ñoom ñaar ak xale bu jigéen bi xamante nañ maanaam kopem la woon journal bi nee na bëri na ay élément ci yoo xam ne daan na koy joxar bi baaraamu tuuma yéen a bu jigéen bi nga xam ne ab la woon te ñu faat ba am lu toll si ñeenti weer kopem moo nga xam ne moo këmbal kookee la ñu teg loxo ndax dañoo njort ne girawaali ba kumba gi moo ko def yéen a kaay gi di Walf Fadjri nee nañu leen ay ay ñol-ñole ay gàllankoor ba ñu am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum politique waaye nag noonee nga xam ne moom lañ doxalee ak Khalifa Sall Karim Wade état bi pouvoir bi bu ko bëggee doxalee ak Barthélémy Dias wala Ousmane Sonko lambay mën naa ñaw te bu boobaa caaf mën naa xëma te boobaa tamit musiba mën naa am ci réew mi journal bi li mu bëgg a wax mooy pouvoir bi bu dee dañoo bëgg andil Sonko ay jafe-jafe ak Barthélémy Dias fii ak 2024 événement yi nga xam xibaar naan ñu démb Ousmane Sonko dafa am ay xibaar ay rumeur yu ñu wax ne Ousmane Sonko dañu ko mandat d'arrêt maanaam fu ñu ko fekk jàpp ko andil ko yoona loole nag ci mujjantal gi dañu ko wedde waaye jege ñaali Ousmane Sonko yi kenn si ñooma di Sadir Top nee na état bi pouvoir bi maanaam lépp daf ko planifié woona dafa bëggoon a jàpp Ousmane Sonko xibaar bi li mu senn moo tax mu daal di deltu ginnaaw yéen a kaay gi délibération nee na département bu Podor gars yi ñoo ngi tëkkalee Abdoulaye Daouda Diallo ministre bi ñu dénk wàllum finance ak Cheikh Omar Anne Diallo moo nekk sa kanam jamono ji lim ko rawee bëri na loola ndax nag département bu Podor ñaar fukk ak ñaari commune la fukk ak juróom-ñeent yëpp ñoo ngi ci ginnaaw Abdoulaye Daouda Diallo yéene kaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu cadre concertation des acteurs de la pêche artisanale ci Sénégal jamono ji mer nañu ba mara détail ndax ñoom nee nañu jamono ji ñoo ngi am ay jafe-jafe yu métte métte bëri na si ñoom ñoo xam ne seen yaakaar tas na ba ñuy jéem a dem ca diwaanu bitim réew ndax bëri na ay pêcheur ay nappkat yoo xam ne maanaam ci géej gi la ñu des yéene kaay gi di Rewmi yi nga xam ne Éric Zemmour ko yëkkati ne Sénégal yi ay délinquant lañu loolee nag tax na tey jii gars yi danañu ko plainte ndax nag fédération des maisons postales ëmb nag lu toll ci ñetti téeméer organisation ak nag ambassadeur bu Sénégal bi nekk ci France nee nañu danañu ko porte plainte tey jii Éric Zemmour kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko du wax guléet yàgg naa singali Sénégal waaye dañu ko war tere maanaam mu ñëw Sénégal la ba tey ci journal bi ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom Ousmane ambassadeur bu France bi nekk ci Dakar yéen kay gi de Le Quotidien nee na tey la Sénégal di dalal ñi nga xam ne ñooy waa Égypte jëm ci match barrage mondial bu 17h jotee Sénégal dafa war a gagné gagné gu yaatoo yaatoo yéen kay gi du Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Aliou Cissé nee ji nag efficacité moo war a am ci jeu waaye tamit efficacité moo war a am ci but yi caax yi gars yi dañ ko war di yëngal bu baax baax yéen kay gi di Dakar Times xëy am na ko loola yéen a kaay gii di bés bi nee na ñaari mbir moo am Sénégal day man gagné qualifié daal di dem ca Qatar mën a ñàkk bañ a gagné nag maanaam toog fii ci Dakar journal bi nee na ñaari mbir la daal maanaam Qatar wala a kaay gii di tey ji la talaatay ndeer ça passe ou ça casse match moom jamono ji Sénégal daf koy gagné gagné bu yaato yaato ngir a qualifié ci coupe monde bi nga xam ne ca diwaanu Qatar la koy amalee Aliou Cissé nee na match bi nag du nekk match boo xam ne bu yomb lay doon te lu ñu war mooy teel dugal Carlos Queiroz mi nga xam ne mooy entraîneur bu